Touba ca kanam wajalilaay maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat kanam wajalilaay maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu yéen waa kër Cheikhul Khadim Cheikh Ahmad yi nekk ci diwaanu itali ñu ngi ànd waa coordination bi fas yéene dem ba Sicilia ngir lan communiquer ak lan massifier ak lan sensibiliser mboolem taalibe Serigne Touba yi ngir ñu tàbbi ci liggéeyu Touba ca kanam nooru dara ni mbokk mi boo bëggee tàbbi ni ngay def ndem yaa ngi jokkool ak El Ndiaye di coordinateur ba ci numéro 329 088 56 10 wala nga jokkoog Alla Fall 300 31 500 86 23 10 bu nekkee yaa ngi nekkee Kataña man nga jokkoog Baylar Dramé 300 27 600 11 64 63 yow mi nekk diwaanu Modika jokkool ak Cheikh Diagne 300 88 100 19 03 87 mbokk mi nekke Malta man nga jokkoo Demba Wagne double zéro trois cent cinquante six sept cent soixante onze zéro quatre vingt sept quatorze ba mbokk mi nekkee Agri Kento mën na jokkoo Ibrahima Ngom ci trois cent quatre vingt neuf cinq cent quatre vingt treize vingt trois zéro sept ba tey mbokk mi nekkee Agrigento mën na jokkoog Maam Jaara Sall 300 27 100 81 65 63 mbokk yi nekkee rajo Calabria mën nañu jokkoog Fallou Silla 300 80 200 35 39 69 yow mi lamesia nekkee Lameziya jokkool ak Xadim Njaay ci 377 348 55 23 yow mi nekke ba tey lamesia jokkool ak Soxna Xuja Jóob ci 300 31 500 44 80 64 yow mi nekkee Cosenza jokkool ak Lamp Ngom ci 300 49 200 16 23 93. mbokk yi yéen ñi fas yéene jaayanteeg Serigne Touba. ci liggéeyam bii di Touba ca kanam nooru daare ni tàbbi leen ci liggéey bi nan ngay def weer wu dee mille francs at mi douze mille ñu am deux millions de murit weer wu dee wu nekk ñu am deux milliards at mi ñu am vingt quatre milliards mën a liggéeyal Serigne Touba dëkkam biiri Touba ba mel ni Makka ak Madina nam ñaane woon ne wajal bihi daariyakal madina barakatan wakaabatan masona jërëjëf Serigne Touba. Touba ca kanam. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man abaat. Touba ca kanam. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri man abaat.